donte dafa tuuti te sax rek baax ndax moom yokk lay soxla waaye soxla yu wàññi moo tax daal loo cee def rek seet ko ba wóor ne leen mën nga koo saxal doole bu wóor ne mën nga dool li nga dool doole la baaxoo waaye baaxul waaye waaye yu këriñ bu laaw nag kër bi daawul sax woo leen yàlla di mën ngeen ko doxee rek sant yàlla góorgóorlu te xam ne lislaam lu mel ni rek ku koy doxal te Moussa dana wax ne bu ma sañoon buntu kër bu ne dañ waxtaan te yëkkati baatu laa pare nangu na ñaan ci baat boobu moo gënal yàlla loo ne rek am na àq àq mooy lay dëgg mbir mu ne la cay dëgg mbir mu ne daa am lu ci doon dëgg ak lu ci doon dëgg àq yàlla mbir mu ne la cay dëgg rek la lay am wax yëpp buñ dajee benn wax rek ci dëgg mooy laa ilaaha moom rek indi wax te kon mooy xaqiiqa ci wax yëpp moo gën a yem am nga jënd jëm waxtu boo ko waxee rek ñu ne këdduwatul xaq xeeti jaamu yàlla yëpp tamit moo cee moo cee lu mu nekkul rek jaamu kon mooy xaqiiqa xeeti xam-xam yëpp xam yàlla mooy seen xaq waaye mën a xam rek sa morom yàlla ngay xam mooy sa morom lépp lu yàlla sàkk na xaqa boolu am na même jëmm nit sax day yàq ci nit doo rey nit ak nit dafa am xaq dëgg-dëgg nit du li ngay gis du li ngay daal dëgg-dëgg nit te yàlla dafay bañ nit ca boppam wa fii anfusikum afalaa tubsiruun moo tax bu ngeen xool seen bopp am lu cay xool ndax guddaay bi ngay xool wala melo yi ngay xool ana looy xool sa bopp kon xool sa bopp la mooy lay dëgg dëgg dëgg doon xool ko téye ko loolu boo ko yëgaat yëg yàlla yàlla jurul jaam bi waaye jànk du bëri ñu gërëm a nit jàmp ñu dëkkal yàlla ak ñu dëkkalu yàlla kuy dégg léegi ku ne yàlla ci koo rek la ne waaye xam-xamam moom dem na fu ne gis gisam dem na fu ne waaye jëmm moom benn barab la te borom xam-xam ko parce que te loolu xel mu sell rek wax dëgg yàlla man kon kon lii gën a mën nit ñi waaye ñaan xel nag yaakaar naa gën a mën a mën a kon daal mel na ni yàlla jëmmam moo matul waaye gisam ak déggam ak xamal matul. fekkee jëmm ja benn barab lenn kon jëmm ja mat na kon manqué na kon liñ daan yàlla mënta wute kay kon wute na am nga danaa si jëmm teew waaye sa xam-xam teewoon nit sax xam-xamam dana teew ci barab bu di jëmmam dem nit kese rek nekk ci barab bu sori sa xam-xam dem bu sori sa gis bi dem bu sori te nga rek yàlla kamaan la dara manqué yàlla dara manqué na xam-xam mate noonu la jëmm mate noonu la lépp mate yàlla amul mate dafa nañ ko dañ ko dégg ak amoon lu ñu laay rek wax kon loolu pas la boo xam ne ku ko fasal ku leen yàlla saaba yi dañ laaj yonent bi sax na ko dinaa laaj yàlla bu fekkee dafa sori ñu joxaat ko bu dafa jege ñu déyaate moom yàlla tontu ko izaa sa'alaka ibaadi annii fa innii qariibun ujiibu da'wata izaa da'aani buñ la laaj yàlla ni yàlla ku leen jege la di ngeen di bépp yàlla it moo ko wax mbokk mi inni xaribun ku jege la kon daan nga yëg ne yàlla soriwul yaa amul bët waaye lañ def yàlla loolu moo dugut yàlla yàlla sa bopp bu ko yëgee bu la réere sa bopp rek réeral ko ci boppam du ko yëgee doo ko yëgee ci beneen jëmm déedéet ndax jëmm boobu du si lii waa ji waxoon ne caf ko ak lem doo ko ñemee wala doo ko yëgee ci làmmiñ yu jàmm ak caf ko ak lem doo ko yëgee ci làmmiñ yu jàmm ko ñam daal xam na lan sax waaye ci yow mi ko ñamul dégg rek nga ca mën a am na nga dégg waaye mën a wax mukk ne di des yàlla itam doo ko yëgee mukk ci jëmmu jàmm sa jëmm ko yëg di la saa su mu teew moo tax yebale sa bopp xoolal sa bopp loolu mën a gis sa bopp gisoo yàlla sa bopp rek juréet la su ko nag mu doon laa xool nag xaalan bi wala ila l ibili kayfa xuliqa wa ila samaai kayfa rufiat wéy la Dubaay di kay fa misbat wéy la Abdi kay fa tujaa yi nga xam ne moo nekk sa kanam waaye fekk da nga sa bopp ba la loolu yéen baax na bir na ko man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu aaya bi kon nit ki bu boppam lii rek lépp lépp day wër boppam nag ci boppam waaye nit day war boppam ci boppam xaqiqa ba day xaqiqa ni mooy dëgg dëgg nit anam amul benn cër booy laal ci jëmm ji ne mu ngi nii lii la ba jëmbat te loolu laa na mën a man tey xam na waaye loolu di yëg ci yow di dund ci du lu ñuy tënk ci benn place wala benn cër wala mel de bokkul yaru yàlla ko gis nga ni mel te démb noonu la mel tey noonu lay mel bu ëllëg itam moo tax Sëñ Tuubaa mu ko yëg dégg nga la wax dama dee la wax te da ko bind te dee kullu nafsin saa'iqatul mawti bakkan mos dund la nga mos dee Sëñ Tuubaa si wàllu si ba mu desoon ba kañ te waxu ko ci ba kanam ca xam-xam ko daa loo xam ne ku ca ak guut xamul te doo ko mën dégg am na yoo xam ne duñ xamul rek dañ jàpp buñ nangoon ne kenn ku ne ne xam ne am lu yàlla won xamal am lu xamal waaye nag xaq saa su gëm yàlla nag mooy mokk lu ko wax ne xam-xam ak xel ak ngëm dañ ne ñett yoo xam ne dañoo lëkkaloo benn man seen bàyyi ko xel na mooy jib na xel nga judduwaale waaw xel nga judduwaale ngëm dab la xam-xam dab la moo tax it lu mu juddaale mooy taataan ngëm yàlla gi waaye mooy taataan xam-xam yàlla lu mooy nàmp kenn du ko ne ñor di wet bi kenn du ko ne bàyyi wet waaye bu si reggee rek bàyyi bu xiifee itam jël na moo def ba daan moom xam na ko am na ko yàlla ji kon xel moomu te ngay sukkandiku ba gëm sa borom waaw ko bi kulli seen ayatun tadullu ala anul waahid loo mën a xore cëmtaan ko boo xam daf lay wan kenn yàlla ndax ñaari wax ne ki wér dina yàlla amul boppam a ko réer rek wér di yàlla duñ wér yàlla ku ko wér rek sa bopp la def ndax yaa ngi ko yëg sa bopp waaye doo ko xam kon gëm yàlla moom togg su ko defee xam-xam nag mooy ñëw wéral la nga gëm parce que na ngeen beesal seen gëm yàlla ci laa ilaaha illallaah kon laaj na beesal lu koy beesal nag xam-xamit bu tàbbee lala xel bi niital lu mu rëy rëy rëy am na koo xam ne xel àggul pour xam-xam moo koy def loolu nag dana baax sax surtout ñi nga xam ne dañu wax ne xam nañ yàlla ba luñ andi rek ñu ko taawil seen xel rek duñ noo koy ñàkk xam dara dañ bëgg a xam lépp lu nekk dañ ko taawil daal nga ne li mu waay naan la li mu waay naan la ñoom daal duñ ko doon dara daal gàtt tabi da di ngay def ci ci gëna bari yépp ci xel mi nga ko tek dana du xel mi la ñu natte xam xam xam xam ñu ko natte ci alquran wala gis ma wax yu ba ak fa kan du jalla wax yalla ci lu ci dara su ko ndiku di wax alquran mo da ya ci ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon waxu doon bànneexu bakkanam waaye lu ko yàlla xamal wëññi ko mooy alquran ca la doon waxe kon mooy nattukaay bi kon du xel kon lépp lu la xel ñu indil nga peese ko alquran mu wuteeg moom rek dàq di naat ci alquran di la xel ñu indil nga wax sa wuteeg waxi yontu waa sam dàq di naat ci yontu yontu waxam yépp alquran nag léegi kon moo tax kon nga xelum neex xel na ku ne mën na faj di benn aaj waxoon ne xel mi na dem ku ne dañu mu dem dañu ko tasamaan mu dem dañu ko fu mu dem xakk sa waaye fu xel di dem yow boo bëggee dem yow da nga wut paas bala bala xel moom mën na dem fu ne waaye yow boo dem fu ne da nga wut paas de mm-hmm. kon nag fa xel di dem kon jëmm mënu faa teew te am na fa xel dem te jëmu teewu fa nag njëriñ la du bari waaw man laa xaar nañ ci barab bu bëree bëri waaye saa yu alal bii foofu sa xel dem xalaat ko gis ko xemam tam nga cay amal waaye doon gis rek wala loo ko foog sa tànk dëgg fa mu doog a mën tànk nag pour nga dëgg nag yoon rek moom naaw yoon rek moo tax xel yoon ba muy jaar boo yow boo bëggee dem du yoon moom ngay jaar yow déedéet kenn yoon bu muy jaar c'est ça yow soo bëggee dem yoon du yoon moo ngay jaar yow am na yoon mooy jaar yow wul boobu su ko defee loolee nag ci xaatim moo tax lu lu la xel mi indi rek daf koy xelaat liggéey natt ko alxuraan natt ko addis ak azar su dëppoo moom jàpp moo tax ñu bëri dañuy taal yi moo tax dañ koy bañ sax ni ndax yàlla mu taal wu ilal am wa raasiquuna fil ilmi ak azar bëgguñ ñëpp di taawil wa raasixoona fil ilmi alhamdulilah yàlla moo xam taawil ak sax wante wa raasixoona fil ilmi ak ñi nga xam ne sax ci xam-xam di gëstu saa tudd moo tax nag kon du xelum neen wax na kon fu xel mi dem ba yem am na ñu xam ne xam-xam rek mën a tey yóbbu waaye xam moo la xam-xam la la xel xam-xam bi niital du xel moo la koy xam-xam it boo demee ba sa xam-xam yam doon ci leen dégg nga war indi la ne ëpp na sa xam-xam ëpp na sa xalaat bul wétti de jàppal ne yàlla moom mën na lu ne waaw lu mu yéeme yéeme lu mu rëy rëy yàlla moom mën na lu ne waaye nag du xaatir wala xam-xam wala xalaat boo xam ne day wétti dara ci yàlla moom te léeg-léeg ngi dem ci xaaj yi wala taawilam bi day weddi yàlla ndax yàlla loolu weddi ci moom rek ñu jóg soo weddee melokaanam weddi jëfoom weddi ko soo weddee waxam weddi ko foog nga xàmmee meloom xàmmee jëfoom xàmmee waxam ba man ko dëkkal ba nu ko weddi yàlla te ci waxam la ba nu ko weddi yàlla ci meloom la ko weddi ba ñu ko mel yàlla ci jëfandiku ko yëngu yooyu yëpp ñàkk a xam yàlla koy wax boo xamee sa borom da koy mën a dëggal ca waxam ya ca meloom ya ca jëfam ya te doo ko bokkaale ca maa ngi loolu léegi boo xel yi te lépp luñ dégg ak ku mën a wax buñ teen rek jël suñ xel leem teg rek ne la mu wax noonu la. kon lu xel di jël lu waa ji rëy rëy daal lu bàqaamaam rëy rëy rëy lu xam-xam bari bari bari bari nañu ne bàyyee sa xel nga xelaat te jànkat yi foofu dañ koy jur ñoom nangu kenn ko xelaat lu wuteeg leen xam waaw ñoom daal saa yu wuteeg ñoom ci xam-xam dañ jàpp yow li nga xam baax ñoom wax rek a war am déedéet nag aaye biñ jàngi firi ko ñoo yoo ci la ci dëgg ci dëgg boo leen xëppee xam ne mën nga caa dégg luñ dégg waaye loolu lañuy ñuy bañ ñoom saa yooyu ci dégg luñ dégg rek dañu yël la nga dégg ca ko xol jàpp nañ leen dégg dana xam nañ ne alxuraan bi xam nañ alxuraan wax tasa waaye duñ ko nangu wala ku war ko wax ne alxuraan kuñ ci yeere dama ko dégg waaye eh, bu la waaye tegal waxee ay wit la bokk wala mu ku la gën a leer lool hmm. kon yow mi ngi déglu kon liggéey sa xel kii wax moom nay wax yow mi ngi déglu sa xel hmm. boo ko dee dugg la hmm. waaw suñ leen kasaat dàqale nag sa xel ak sa xelaat nag ngir ñoom lañ la wax nag boo moytul da dëgg lam nañ jëlee waaw te kon nañ di fikra liggéey xel bu baax te balay dëgg alquran yàlla ci ko mën na ko ngeen xalaat alquran waaye sa borom boobu leen moom la jar ci koy jàng ak ci koy déglu ma ci yem ak kii wax ak kii déglu la ma wax yéen ci wax kii wax yàlla ne du ay waxam wax yàlla nekk li lam déggee wax ji ak lam xam sax moom la nekk li yooyu itam nag seetaan moo ko déggee du moom moo wax ji kàddu yàlla na kàddu yàlla na mel ni la tax yàlla wax ko tuuti na ci loolu kàddu yàlla la mu rëy la lool te bari lool mu wute lool dañ ca dégg rek loolu ca dégg lu mu rëy rëy la dañ ca déglu ko loolu ca xam lu mu bëri bëri dañ ca xam ko kon nag saa yu ca déggee lu gën a rafet la nga déggoon mbaa lu gën a rafet la nga xamoon ak saa bu rëy na ko rëy day toll na doomu aadama da koy am waaw rëy day alal ni waaw ndax da ngay gis njëriñ xakasa bëgg ko lool te man ko lool rëy ñëw xakasa jaa su moom ba xañ na te nii lay defal doomu aadama saa su gis njëriñ loo xam ne bëgg ko lool xemam ko lool xakasa waaye rëy ñëw jaa su leen te moom ba xañ na lool kañaan kañaan noonu lay dem noonu bay jaar si di tey ngëneel yi waaw te bëgg ko lool aaju ko lool waaye kañaan yow jaar si ne moom nag doomu baax a kañaan kat a kat gis nga alal naa yéen ne day day day nekk njëriñ bu baax ñu safal la kenn wax gis te xanaa ko mu baax lool nga waroon ko am mu ñëw jaar si wax xëy na da koy da koy maroon sax la ko. <coughs> kon yooyu moom borom lay am. bëgg a jëriñu danga mu ci ñett yooyu mooy bokkaal yàlla ak réer ak kañaan ku bëgg a jëm ci yàlla daal ko lu baax foo ko fekk xamal ne xaq saa yi sa alal fu mu fekk lu baax alal lam la alal lam bu ne kër laa ko fekk bokk ma ci kër doo ci teel bokk xanaa mm-hmm. kër gu kër gu kër gu baax mm-hmm. kon na ci la te loolu moo gàll gàll ko nit ñi ku ne am na kër boo dëkk boo xam ne loo ko gis la soxla woo feneen te léeg-léeg dëkk ci kër boo xam ne daan nekk ko nag dara wax boo demee ci kër jàmbur gis loo xam na ak daal gisagul sa kër te loolu leen gis kat bëgg ko lool waaye kër gii laa la gërëm wala koy def ah gars yi doo baatu wutuñu ko ñun noonu la ñoom dëkkaluñ seen bopp fenn fu mu ah, baax yàlla di na doo wut yàlla ñoom amul fuñ dëkkale seen bopp fu dul fu mbaax yàlla bi ne fuñ ko fekk daal dëkk nañ fuñ ko fekk jóge nañ moo tax ñu bëri woon sëñ doon sëñ tubaab mi mu jàpp ci tarix ba nañ waaye lam la wut la li mu jàppoon ñu def leen waaye lan nga xam ne moom bu ko ci laaj gisu ko ca def seen loxo keroog ba mu tee lam gisee lam doon wut nag keroog leen xàq daal ne dëkk na sax na woote na ñëw leen ci lii ah kon jeex na kon baax na yàlla moom moom Cheikh Tidiane kër Saalum ah, waaw ba mu toogal ba woote la mu woote kër yu bëri jaar na ko waaye dara tënku koon du lu mbaax rek ko jox ak mu ba yàlla di ko keroog ba mu ko jëlee keroog tënku mooy def dama fenn kenn moomat bi tam nii lay dox di dox baax lii la Moussa Moussa Ba ma ne mboolem ñu bëgg yàlla te muy gën a ñu ne ñu ngi Moussa mos na ko wax sëriñam am nga soxna des du xëy des waaye ku bëgg lu baax moom gis nga dara mosu koo gàllankoor ci lu baax wax du tax saa su ne ñu war di liggéey xel yi ak di gëstu mooy waxkat yi dañoo bëri lool mel ni dañoo xas saa njëriñ la te ñu gën a bëri ñëpp ci ngelmaan la ñuy waxee maa ngi waxee seen bakkan maa ngi wax ci ak noonee mm-hmm. te du nekk mën nay xam du ci nekk mën mm-hmm. waxee ci ak noonee kii waxee ci bakkanam mm-hmm. kii waxee saa il faut nga xàmmee leen boo ko defee tamit gëlëm na nga sax

noo koy gën a mënee da koo koy aarif na xool bi bët yi xool aarif ca xol ya lay xool ak la nëbbu ci biir xol ya ak la ne ci xel yi loolu lay xam da tax muy bi waaye dara bu ñu waxul doo xam kon yow mucc ko aarif day xam li ñu wax gis lu feeñ xam lu dikkagul te muy dëgg kooku aarif kooku nag borom kenn moom koo sànni gindeeku na ba ko mel aari mu ngi mel ni njàccaar ci biir gumb njàccaar bi ne ci biir gumb nag ko sànkee mbaa ñu gëlmal ko kon dafa kon xel la am dof la waaw dof bu nekk ci biir gumb mën nañ ko sànk mu ñoo gis waaye moom amul xel ñàkk ka mu ñàkkal mooy dof ga mu dof moo tax ñu gumb yi di ko sànk di ko jàll fu mu doon ko def loolu ay ñacc ci bi dugum bakay sëñ la dëglu nga wone ñu wone wit ñam buñu sant yow non la xarit wala mel ko xamne dafa risas nek ci biir ñu xamne amuñ dara mu nek seen bi non la bari gëna ko yépp ñu wax baax te gor gu te dundal ko te dundal ko jotaay mel nii ak jëf yu mel nii rek ko dundal taal dañ koy xam waaw taal dañ koy xam boo ko xamul rek bu yàggee rek la tàkk rek bu tàkkee lu suul ma ko ma nga dolli ma nit yàlla yi lii koy xam yàlla ci dajale nit ñi xatta saa ci jaamu yàlla ak lépp loo xam da koy dundal da koy wane te xool jotaay yi daan woote bëri lool waaw danaa ne maa ngi jaay ma fere yi parce que moom mu ngi tam xam xamutaan ku ne mu la demal baru saa ngam toog fa mu ngi xamutaan nga defal saa xatta saa loolu moo indi yoonu fi ak si muy teg lu mën a jëm kanam it te boo liggéey loolu ko yóbbu kon loolu buñ ci tey di bàyyi xel baax waaw te di nangoo sonn it te jiital ca pas leen lépp lu géej gi laaj te nangu seen jëf te gërëm ko te def leen xool yaat lool wala yéene lépp yoon bi man ko matal si zaay ci bàtt leeral xel yi leeral fan yi sotti gën mànd mu sotti sa am